ak jamono. waaye ci mujjantal bi. émission bi mujjewul am. li may gën a jàpp tey mooy man maa ko woo ne ko ñoo ñu dem marché Sandaga nga jënd costume bu bees nga sol ko parce que télé ngay génna ñu waroon ñu ne ko émission bi vendredi finalement lañ koy enregistré. nañu toog ñu xaar vendredi ñu quitté tey ci samedi bi ñu ñëw. Euh, déedéet. nañu dem tey rek. tey moom nañu ñibbi tey rek. dama jël sama oto may wundeelu Ndakaaru. di jaawale yoon yi ba 11h ma ne ko ah gis nga naaj na na ñu bàyyi ba suba samedi ñu dem mu ne ma déedéet. yow yow yow da nga nooy parce que yaa ngi ne sa bopp mooy métti man dara na ñu dem ma ne ko ah sama bopp mooy métti xam naa dama sonn bàyyil ba suba rek ñu dem mu ne ma déedéet tey la ñuy dem. dem ba Ndofane ñu taxaw Ndofane mu ne ma xaaral ñu dem ma seeti sama rakk bu jigéen bi nekk bi ñu fa jógee rakk bi sax bëggoon ñu téye ba ay 4 heures man mako ko ni nañu dem parce que yoon bi mëna am dañ koy baare te day goudi fi ñu ngi fi exi 19 h di fo di ré ci auto bi bi ñu fi amul dara dara dara Fi lañu tok di wo mu ne ma nañu tok ñu naan attaaye goudi gi manako waxon na la sama bop dem bi bàyyi rek man bi dem noppalu yow mom comme yow yow yow yaangi normal ba ay 22 h mu wo mu ne ma do ñoo ñu naan attaaye ma ngi fi ak gaay fi manako paske non graw bayil ba suba rek comme ça parce que dama sonne heure bi suba tel jabaram moma moma ye mu wo mu ne ma ki kat ngi lay laaj ñu ngi ni hôpital mané ko lan la mune ma ah ki bi moko danelat en général day faral di yore deun xol bi moko danelat daanelaat dokter ñu wo docteur bi yépp ñu xol ko docteur bi wax mako mané ko papo bayyi nga ma fi dem nga bayyi ma fi jabaram tayiwul di ma ne papo néna nga ñew gaawal nga ñew mané ko néna su bax ci ah tayiwul di ko wax nan ka ko nee na nga ñew Sénégal képp ñak nañu yalla naka yalla suñu borom bi xara aljana yalla na yalla suñu borom bi oy fal suuf